asalaamaaleykum waa États-Unis maa ngi leen di di leen remercier ci organisation bi di leen féliciter aussi may nuyu képp koo xam ne wuy si na ci bés bi mën nañu wax ne bésu Sénégal la bésu Sénégal la dans la mesure où euh, Pastef bi nga xam ne moom moo ko woote li may faral di wax dafa nekk parti boo xam ne dafay confondre même avec le peuple sénégalais. donc ñëpp maa ngi leen di nuyu mais je pense que dinaa remercier aussi mes collègues députés yi nga xam ne ils ont fait vraiment un long voyage pour venir participer à cet événement et là maa ngi ciy jiital euh, notre président Birame Souleye Diop nga xam ne moo jiite bépp liggéey boo xam ne yéen a ngi koy gis assemblée nationale muy liggéey bu moom mii moo ko jiite fu mu joxoñ foofu la xool et vraiment il a tout notre respect mi ngi ànd ci délégation bi monsieur Abbas Fall euh, ku ko dégg aussi bu dul euh, député bi mu doon sax ku ko dégg dégg nga ko ci xeexu mairie Dakar donc kooku mooy Abbas Fall maa ngi koy nuyu ci déplacement bi di nuyu également euh, ki jiite la délégation de France muy Aliou Sall honorable député mu nekk koo xam ne man moom bokk na ci ñu ñu fal ci diaspora bi mu nekk sama binôme et puis on travaille très bien lui et moi à l'Assemblée nationale donc Aliou ñu ngi et à côté je pense que maa ngi nuyu toute la délégation du Canada nga xam ne la dernière fois ñoo ma dalaloon si euh, investiture bi la délégation bu Suisse nga xam ne Habib moom moo ko jiite bàyyiwuma kenn en tout cas et maa ngi leen remercier aussi si vraiment entrée bu chaleureuse bi nga xam ne offre ngeen ko sama collègue yi parce quoi que l'on puisse man la ñu ñëwal et dama jàpp ne samay gan maa ngi leen di ziar bu baax a baax xam naa nag euh, dinaa def euh, un benn affaire bu ndaw 17. Euh, damay def un petit rappel rek parce que dañu nekk ci dernier tournant ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def vers l'élection présidentielle Euh, j'ai en effet la conviction ferme que le Sénégal n'a pas besoin de messie, ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens conscients des enjeux de l'heure et qui ont le courage d'agir. Lorsque le président Ousmane Sonko prononçait ces mots, beaucoup étaient loin d'imaginer le vrai sens de ses propos. Mais aujourd'hui, nous y sommes. La masse critique est consciente des enjeux de Donc nous sommes conscients des enjeux de notre génération. Amis patriotes, 2024, 2024 comptera sur aussi relever les défis. Nous sommes là que tout à Ousmane Sonko aujourd'hui, je pense qu'elle est palpable. Il dans nos maisons, dans nos foyers, à chaque coin de rue, dans les marchés, dans nos lieux de travail. Bref, c'est le projet et nous sommes le projet. Vous tous, vous êtes le projet. Alors, mes chers amis, je pense que, euh, patriotes de la diaspora, vous êtes au cœur de cette vague qui propulsera le changement. Et pour cela, j'éprouve particulièrement une fierté ici sur cette tribune, ici aux États-Unis, où la conscientisation de la diaspora sénégalaise a commencé pour être le moteur du projet. Oui, ici aux États-Unis, j'ai installé la première coordination de la diaspora en Que de chemin parcouru. Mes chers amis, nous avons accompli un travail titanesque et continuera notre ascension vers la souveraineté. Ce soir, mes amis, Nous sommes ici pour perpétuer une tradition née aux États-Unis en et cette tradition, c'est le dîner de collecte de fonds. C'est pourquoi j'en profite, mes chers compatriotes, j'en profite pour adresser mes vives félicitations à notre coordonnateur, mon cher Ibrahim Dramé, et magnifier le travail extraordinaire que les patriotes des États-Unis sont en train d'abattre. J'aimerais féliciter toute l'équipe derrière toi, mon cher Ibrahima. Je suis fière de vous, les amis, mais j'aimerais adresser une mention spéciale à la Lyon de New York, je veux dire Marie-Jeanne, et un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne, Binet l'Argentière, et nos deux coordonnatrices, Mati Bassey et Fatou Diallo de Et à travers ces femmes patriotes, je salue toutes les femmes de New York, de, du, des États-Unis. Alors, chers amis, s'il est vrai que les cœurs des patriotes se parlent, ma voix traversera les océans pour te dire, mon cher Ousmane, que tu avais raison. Et je parle du président Ousmane Sonko, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Ousmane, tout le monde pense comme si le nom est venu après Ousmane Sonko. Alors, personne, si ce n'est la volonté de Dieu, ne pourra t'empêcher de participer à ces élections. Nous y sommes. je voudrais vous demander à chacun, tous ensemble, que l'on renouvelle notre adhésion au PASTEF. Je le répète, chers patriotes, Sonko, chaque patriote est Ousmane Sonko en puissance. Nous sommes le projet, nous sommes les patriotes africains du Sénégal. Sonko